ci assemblée générale bu doon amal ci daru Muxti lañu tabb Serigne djili Mbàkke mu nekk coordinateur communal soxna umuy Ba nu dënk ko mu jité jigéen ñi dajé bi amé won ci kanamu kilifa yu bare bari waaye ci kanamu taskatu xibaar yi. ci waxtaan wu ñu jot a ci daru Muxti waxtaané ko suñu digënté ñun ñi nga xamné ni ñoo ci coordination bi responsable yëpp wuñu kenn képp kuy responsable rek nekk daru Muxti nekk ci commune bi. nekk alliance pour la république képp kuy sympathisant di kilifa doon jàppale le président Macky Sall waxtaan nañu ci ak yow ba ci ndey mbi ligog nga wax que ni vrai véritablement parti bi doxul ci war nañu changer coordination bi. bi ñu ci waxtaané nak ba paré ci lañ am consensus nak jox ko ki nga xamné ne tay mom lañ la wax Serigne Djili Mbacké choix bobu ñu def ci Serigne Djili tamit nekul choix bo xamné ne choix bu am tapalé la. waxtaané giñ ko waxtaané rek doyna téwul liggéey bu mu liggéey ci base bi japp gu mi le président Macky Sall disponibilité gi mu disponible. ak choix yu mi def tamit euh, ci jëmele ko ci jàppale képp ko nga xamné ni responsable la jox nañu doole jox ñu ngëm jox ñu ay possibilité jox ñu yaakar ba ñepp jappando que ni buñ ko joxe coordination bi dina dox. lolu motax ñu ñu waxtane ko ba jox ko tay coordination bi kon Serigne Djily mbake mom mooy coordinateur APR encore une fois ci waxtan wi ñu waxtane ko ba paré sabab li liko ko waral ci muy waral bépp lépp lo xamné ni ab structure la buy dox lenn lu ko waral rek moy ñaka dox comme ni ko bëggé ndax ñi jitu ak ñi ñi jital ñepp ay nit dong lañ ku ci nekk da nga am. toll fo xamni ni gisunu disponibilité bu mat seuk bu mu war doxal gis nañ ni tamit bimu yoree coordination ba léegi parti kuwut comme ni mu war a yokkoo mënuñu comprendre nak lu melni ni ab parti politique ñu jëm ci ay élection élection yi jeex réunion bo nga xam réunion bu ñuy réunion la xol naka lañ doon passé événement bi nga xamni ni élection yi defuñu ko tooguñu def bilan xamuñu lu dugg xamuñu génn xamuñu lu ñu manqué xamuñu suñuy manquement xamuñu suñu problème dañuy def élection ba pare rek ñu jël seeni i oto dem ñu xool ni loolu nag suñ ko continuer parti bi fii ci daar Mousty kat jàpp nañu ne parti boobu kon dañ koy rey ba mu dee jafe-jafe yooyu ñu am ci moom mi nga xam ne nii moo koy coordonné di njiit bi loolu moo waral nag tey ñu gën a nag farlu ci changé coordinateur coordination bi jox ko ki nga xam ne ni mooy seen jili ñu gis disponibilité am gis possibilité yi mu am gis tamit euh, véritablement présence am sur le terrain gis tamit mbooloo mi mu am yar bi mu nga xam ne ni moom la àndal pour que nag ñu mën a jàpp ni moom am nañ yaakaar que ni wax dëgg yàlla coordonnateur bu baax la boo xam ne buñ ko joxee parti bi yëf na dina dox. loolu moom kenn du ko nattable que ni bu ñu xoolee APR euh, wax dëgg yàlla la président Macky Sall gàcce ngalaama jàmbaar la lool waaye nag nit ya muy jiital parfois day ci am ay jafe-jafe yoo xam ne nii moom du ko wump waaye day am jafe-jafe sensé ku mënut da war a bàyyi. APR waroon na dépassé fii kat bu baax a baax a baax waaye ci benn fànn boo xam ne ni APR dépassé na ko ci wàllu wutum mbooloo ak wàllu taxawaay bu ñu war a taxaw ci biir coalition euh, présidentielle mooy la grande coalition wax dëgg yàlla des na ci kenn warulu ko lu coordination bu bon a coordonnateur bu doxut loolu it lu tax euh, wax dëgg yàlla li tax élection yi euh, suñu résultat deme fi nii nii nii nii nii nga xam ne Darou Mouhty daanaka dañ koy ñàkk li ko waral mooy APR njiit la daa xaw a des des lu bëree bëree bëri loolu lépp am nañ yaakaar ne wan nañu ginnaaw ndax sensé nañ kooku nga xam ne nii moo fi nekkoon di abo Sall ci consensus ak waxtaan gu ñu jotoon a waxtaan ak képp koo xam ne nii ci parti bi nga bokk mbokk ci bànqaasu parti bi maa ngay nekk ko xam ne nii safoo nga le président Macky Sall mbaa ñu yëgoon ne bëgg nga ceebok waxtaan nañ nag yow changé ki nga xam ne nii mooy coordonnateur ba jox ko ki nga xam ne nii mooy seen Jili Mbàkke ginnaaw ba ba mu bàyyee euh, mouvement ba nga xamee ne nii yoroon na ko ñëw seeyal ko ci biir APR ñu am ci yaakaar am ci ngëm jàpp ni dana ko doxal comme ni ñu ko bëggee. Serigne Jili Mbacke di wax ne mbébétam weesu fexe ba yàkkali géew bi gën a dooleel APR ci biir Daaru Muxti ak li ko wër. jàpp nañ ko nga xam ne dëkk bi bi ñu fi ñëwee léegi changé nañ li fi nekkoon ànd ko nag ak le président Macky Sall ci bi nekkoon bari na tey loo xam ne tey ñu ngi fi liggéey ci côté emploi li fi def amul benn responsable bu ko def 2012 léegi ci côté jox nit ñi ndox ku ñu naan amul kenn ku fi def ci depuis 2012 léegi. ci côté bu la jigéen financement amul kenn ku ko def depuis début 2017 la kon jàpp na rek yoon woon jaaroon yoon rek moom la ñu continuer ci biir APR pour ba ñëpp gis seen bopp ba parti bi gën a mën a dox ngir président Macky Sall gën fee mën a am ndam bu baax a baax. mooy jàppale xale yi taxawu jigéen ñi xool parti bi nag fu mu sooxe woon jubbanti ko ñëpp ñu àndoo liggéey pour yaatal nu ñëpp ñëw na ñu bokk ñu ànd liggéey yaatal parti bi ndax ba Macky Sall kat 2035 la wax waxul 2024 kon ñun ñëpp nañ àndoo liggéey ndax yooyu di mu élection yoo xam ne liggéey rek moo ci mën a may dara mais élection locale yi loolu rek la kon suñu ambition yi mooy lañ nekkoon ñu continuer ca gën a yaatal parti bi gën a jigéen ñi gën a pour ñu am ci ñu jàpp ak loolu rek mooy mooy mooy suñu ambition dañu àndoo taxaw ci ba nekkoon ñu def lu gën lañu bëgg lañu bëggoon la nekkoon ñu def lu ko gën te am na ci yaakaar am nañ gëm-gëm gëm nañ ko te am naa yaakaar ne ñun ñëpp ñu àndoo ku mel ni soxna um baak ñun ñëpp ñu ngi ci biir ñu àndoo ñun ñëpp liggéey jàpp naa ko parti dana avancé bu baax a baax mouvement yëpp du moom rek mouvement yi bari na tous les mouvements yoo xam ne ñu ngi foon di ànd ak président Macky Sall mouvement yëpp tey ñoo ñëpp takku ci biir parti bi ñu ànd liggéey mouvement xippi Cheikh Diop mooy kii sama sama ginnaaw ak ma ak Macky ñor ak ñi nga xam ne ñoo nekkoon ci parti yi yeneen parti yi nekkoon ci parti Madické am ñu nekkoon ci parti euh, Samuel Sarr ñu ñëpp tey bàyyi nañ ak Sonko bàyyi nañ ñëw ngir fekk si le président Macky Sall fii ci commune Darou Mouhty nga ñu àndoo liggéey ay mouvement yu bare bari ñëw seey ci biir APR waaye nu nemmeeku ne ñu nga xam ne ñu ngi doon jàppale Ousmane Sonko ak ñu doon jàppale ma dikke Niang ba ci Samuel Sarr ñoom ñëpp takk nañu seeni toborte ñëw ci biir APR.